ca jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen site bii di wasaare amaat nañu mbégte ak kontaan te jàkkaarloowaat ak comme ça su nekk ni ñu koy defee eh, ci seen émission diine ak jaar-jaar waaye ni naa naa leen nag chaque jour duma ci wéet benn yoon dama ci ànd ak sama góor sama xarit sëñ Habib mu baax mi sëñ Habib ziar naa la. mais kontaan si yow rek. dellu kontaan si bu baax a baax ana waa Pataar. ah Pataar ana waa Pataar. waa. Pataar. waa Pataar. waa Pataar ñu ngi fa. ana seen maire ba. ñu nga mu nga fa bu baax a baax mais euh, aju seen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Ah, mbaa gañe na. waa gañe na aju moom moo gañe mee alhamdulilah fan la bokkoon. moom mu ngi bokkoon ci waa xojo sama kër maam. Ah, waaw sama côté kër maam. Benno Bokk Yaakaar wala Yewwi. Euh, Benno Bokk Yaakaar. Ah. waaw. ñoom de daal mel ni gis gisuñu seen bopp si élection yi de. non gisuñu bëriwul de bëriwul ñu si gis seen bopp nag mais nag yàlla baax na. Euh, <laughs> mbokki internet yi ñu ngi leen di siyaare baax kenn ku si ne foo mën a nekk si àddina bi ñu la fay fekk ne la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soxna Mbène Mm. bisimilah. sëñ Habib comme ni ma leen koy waxee chaque jour rek seen émission diine ak jaar-jaar ma ci ànd ak Serigne Habib ñu fas yéene nag waxtaanee lépp loo xamante ne ni actualité la euh, sëñ Habib dañu koy dooree si li nga xam ne moo di élection locale euh, élection maire yi gis nañu fi mu nekk nii yaakaar naa ne bu bu dee euh, jeexul tàkk it li si des bëriwul mm. waaw. mel na ni jeex na. ndax buñ toogee moom ba bëgg a joxe résultat définitif yi. Mm-hmm. te yaakaar naa tey lañ joxante woon rendez mm-hmm. bu dul ci jamono bi ñuy waxee yow itam du soriwu ko. Hmm. yaakaar naa nag am nañu seen xol sedd am nañu seen xol seddul. am nañu seen xol sedd am nañu seen xol seddul. waaw ku ci mel ni Ousmane Sonko daa mel ni xolam sedd na de. waaw ñi ko doon wax ne de dafa war a dem nag def euh, mbapat. Hmm. war nañoo delloo seen wax ja euh, dem tuub ko jéggalu ko. dem tuub jéggalu. waaw ndax ndax la dégg naa ñu ne woon Ousmane Sonko bu loon làmb. Hmm. dafa war a dem defi mbapat. Mhm. loolu nag mooy mokkalagul politique. Mhm. ku mokkalagul politique nag doo fekk ponkal mu day ni. Mhm. Euh, euh, waa ji la maire Ziguinchor. danaa si ñëw. Euh, fàttali ma ko nga kii ko nga fàqati ko. yaakaar naa kooku kon waroo mën a mënu laa wax ne la danga war a dem defi mbapat mu mel ni maire yi sëñ Abib euh, yaakaar naa ne ñuñ si yaakaaroon ñëpp du xëy na ñoom ñoo gañe maire bi mm. ku ci mel ni ay dara moom moo gañe Guédiawaye mm. Ousmane sonk moo gañe Ziguinchor mm. Ndoye Bane moo gañe Pire mm-hmm. euh, Seydina Issa Laye mm-hmm. moo gagné euh, Yoff mm-hmm. waaw ak ñeneen ak ñeneen daal Barthélémy Dias moo gagné fii nga mm-hmm. xam ne moo Dakar naka nga gisee loolu mel ni ñëpp ñi nga xamante ni eh, séntu woon nañu leen si biir étu politique bi daa mel ni am nañu ndam de am nañu ndam waaye am na ñoo xam ne séntuwuñ leen woon comme kan ak comme ñan eh, xam naa ku mel ni Ahmed Aïdara bett nañu bari Ahmed Aïdara waaw ndax boo faaxatee rakku président de la république. Mm-hmm. nga xam ne tous les moyens. Mm-hmm. teg na ko si loxoom téye ko si loxoom. Mm-hmm. nga mun a ñëw bàyyee ko sa journaliste que sa micro ba. te yàggul sax bi muy commencé di ko. topp ay jéegoom. xam nga li gën a bett nit ñi mooy loolu. mooy dafa yàggul presque matul trois mois wala six mois. gën ngaa bari nga ñëw dajati ko. kon loolu grande surprise lañ ko mën a wax surprise la si sénégalais bu rëy rëy rëy rëy rëy. Mhm. ba si tegu mooy Xaadim Samb <laughs> moom it moo gañal lokalam ba. Mhm. boobu bett na nit ñi. mais si abi loolu war na leen a bett parce que ñoom tamit ñu ngi doon ñu ngi doon def li leen war de. waaw Eh, def nañ nekk ay journaliste moo tax. waaw déedéet journaliste sax boo bul waxee noonu ndax boo defee da ngay xeebaate. déedéet te journaliste war naa mën a jiite réew mi. journaliste war naa mën a jiite réew mi mais xam nga ni ma ne ni nekk ay journaliste moo tax mais xëy na damay damay jàpp que ne rek ñu bëri fooge wuñ leen ko woon. waaw am na ñu ko foogutoon. Mhm. waaye ñi nga xam ne seen i partenaire lañ doon ànd ñoom si campagne bi. Mhm. wala seen i mbokk xëy na bettu leen waaye ni man bett na wax dëgg yàlla. yaakaaroo ko yaakaaru moo ne Ahmed dara war na mën a gañ a Géejawaay yaakaaru moo ne Xarim Samb mën naa gañ a ba. Mhm. nekk maire yi tey. ak Ndoye Bane. ak Ndoye baan pire. Mhm. ñooñu daal vraiment bett nañ ma siyeef yi. Mhm. léegi nag loolu amul solo li am solo mooy fal nañ leen. nañu fexe ba euh, fa yëf fañ fekk yëf yi ñu fexe yëkkati ñëw ba. ba mu gën a kowe. loolu lañuy xaar si ñoom mais xaaratuñ si ñoom ay wax. wala day refus de presse. Mhm. yooyu amul solo li am solo mooy nañ liggéeyal askan bi. ñu liggéeyal askan bi. waaw bañ a am bañ a am defet maanaam bañ a bañ a bañ a euh, yuuxu bañ a jib fu ñu ko foogee. fab mairie bi di ko fayantoo. Mhm. nañ ko moytu bu baax. Mhm. waaw. Euh, waaw d'accord sëñ Habib est-ce que élection maire yi am na euh, yoon ci li nga xamante ne nii moo di présidentielle. foofu nag nañ fi def ànd ndànk. ak dal bu baax. élection locale mbirum koñ la mbirum gox la. gox la waaw. Mm-hmm. jotewut ak dara ak président boo jotewut ak dara ak législatif. Mm-hmm. kon gox bi mën naa am ñu mere mairie bi fi nekkoon. Mm-hmm. nuñ koy meree mooy jëloon na seen terrain jaay. jaayoon na leen doole si biir mairie bi. ñii euh, tërngal na leen ci politique jaaree ko ci mairie ba ñu yore. dañoo bokk benn koñ bi. kon nit ki mën na meri nit ki si biir koñ bi tey mu nekk maire bi te yéen bokk benn koñ bi bokk benn ëtt bi mhm. boobaa léegi mën na faj meram si carte boo xam ne nii tey ñu ngi koy wadal mhm. mu ne maire bi daal gannaaw defoon ni lii sama papa defoon ni lii sama yaay mhm. wax dëgg yàlla du koy dama koy sanctionné léegi du ko tànnee sama garde. waaw loolu am na parce que man gis naa maire yoo xamante ne xëy na fa ñu fa ñu fa ñu fañ leen fa ñu bëri sax xamuñu leen fa waaye li tax ñooñu fal leen mooy ki fa nekkoon la mu def loo xamante ni jaaduwul loolu moo tax ñooñu xeex pour kooku génn fa mu nekk. waaw dëgg la bari na koo xam ne tey xalaatuñu woon mu falu. Mhm. waaye ba mu posé candidat. lañ ne waaw kay gannaaw ñëw na ak nu mu mën demee. Mhm. nañ ko jox mairie bi. ndax wax naa fii barki démb ni am na si maire yoo xam ne bu ganaar posé woon sax. Mhm. ñu fal ganaar ga. bu ganaar posé woon. woon. Mhm. ñu fal ganaar ga bàyyi meer ba fa nekk. lan mooy waral loolu. waaw maire baa yorewul koñ ba bu baax. yorewul maire ba bu baax. di bundu xatal nit ña. di jaay suuf si di jaay di ko def si poosam di bokk ak ay bokkam. séddut si kenn koo xamante ni ku yeewoo si askan wala si biir local ba. waaw sëñ Abib li may faral di dégg loolu moo tax olof Njaay naan ku fàttali li la fal rek li la fo li lay folli day yomb. Mhm, mhm. dëgg la bon moo tax na ñi ñu fal nii nañu bàyyi xel baax li leen fal. Mhm. mooy nit ñi meroon nañ mer woo xam ne góoxoon ko. ba tafli nañ ko si biir urne yi bañ xam ne ñi ñu mere woon yëg nañ nit ñi mere nañ leen. léegi nag ñu fal la yow. kon nag bul fàtte mukk ngelawaay li la fal. Mhm. li la fal mooy fayantoo mere. Mhm. koo xamante ni ni jàppoon na nit ñi di leen tortiire léegi nag waxtu woo demee nag ba toog sa mairie ba yóbbaale loola. Mhm. waxtu woo ko fàttee nag. chaque faleeku. day dana bette ñëpp. Mm-hmm. ko foofu faale day day kii day yomb ci maanaam yow sax def lay jaaxal suñu abib ñu seetlu benn affaire mm. muy diggante li nga xamante ne ni moo di yeewi askan bi mm. ak Benno Bokk Yaakaar naka nga gisee ñaari diggante yooyu. yeewi askan wi. dëgg la yàlla wuyu na. Mm-hmm. seen tur mm-hmm. yàlla nag waxtu woo tàccoo feccal. moo tax fecc nañ. ba yàlla wuyu leen si askan wi yeewi nañu askan wi nag mhm. alhamdulilahi rabbi alamin waaye nag yeewi boo xam ne nii dañ ko teg nag ci ay mbir yoo xam ne lu jege wante la maanaam yu mere woon li nga xam ne mooy gouvernement bi mhm. trop mooy bisi mujj mooy ñaari cas laa lay jox muy ban ak muy affaire góor jigéen ñi muy mhm. benn ñaareel ba mooy affaireu match kan euh, bi ngay gis nii mhm. bari nañ ñu si mere mere wu rëy affaireu gouvernement bi lu tax loolu lu tax loolu mooy dañoo tere mboolem presse parler mhm. boo xam ne ni da nga wax si match yi wala si kan bi mhm. pour nga reporter ko match bi nga xam ne mooy dox diggante Sénégal wala benn match boobu askan wi mer nañ si mere boo xam ne nii suñ la ko waxoon doo ko gëm sax kon nañ bàyyi di seet loo xam ne seen intérêt personnel la. di ko utiliser si kaw loo xam ne intérêt. publiquement la mhm. nit ñi da leen war a jox seen gëdd. kan bi ñëpp a ko bokk soo demee ne ka nga xam ne mooy RFM du ko reporté. Mhm. wal fajri du ko reporté Sud FM du ko reporté. Mhm. RTS rek moo am signal moo am droit bi. nit ñi meroon nañ si loolu mer boo xam ne Macky Sall yaa ngi xam nga ko bu baax dina la ko wax. ndax may sa conseil. affaire góor jigéen bi ñu yóbboon assemblée. Mm-hmm. ne nañ ko criminaliser ngeen lànk kandaa du ngeen ko criminaliser nit ñi meroon nañ si. Mm-hmm. muy ñaari mbir yoo xam ne ñaari mbir yooyu mooy yi nga xam ne moo tax ngeen dem ardo mm-hmm. te dafa jege wante ak local bi. waaw du dëgg. kon nañ ci xel.